jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb nu yotti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saasu su ne ñu ngi fii nag ci gis nga mafia soq bi tali bu bees yee soq rang muy gaaw mafia baa ngi noonu siyaar dafal café <laughs> ah ma joxe ma jël de Gaynde Njaay siyaar nan jëriñ siyaar naa leen de naka la bi siyaar naa la faal naka tey tawfeex sant bu wér kay waaw ah, ñu ngi sant ñu ngi sant sant yàlla bu baax kay kaa ñu toog soq ngi noonu la grand champion kaa ñu toog waxtaan mbokk yi comme niñ leen ko waxee ñu ngi nii Pikine seet si fi sampion bi nga xamante ne mooy soq soq nag kenn du ko présenté ci làmb ndax ku ne xam na ni démb nekkoon na bis boo xamante ne Sénégal dañ ko doon xaar rawatina amateuru làmb yi muy diggante soq ak gàmmu Gueye mu nekk dër bi diggante fi nga xamante ni mooy Pikine ak euh, nu mu nu mu tuddati euh, ak Tëngéej nga xamante ne ñaari xale la loo xamante ni mbëru penc lañ bu ñu jógee ñëpp dañuy jóg ànd ak ñoom ku wax Pikine xam ni macha allah làmb fekk na fi baax dekk nañ fi ñaari yoon titre roi des arènes Gamou Gueye tamit ko noonu mu doon champion boo xamante ni ñëpp dañ ko doon nettali tey tey mënoon nañoo ñëw ci Sokh ne ko noo ko daanee mënoon nañoo dem ci Gamou Gueye ne ko noo ko daanee waaye gis nga jaam ak pexem yàlla ak dogalam Sokh maa ngi lay siyaar. waaw maa lay fay di wax onze billah bisimilah inna wali yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di sant sëñ Abdou Karim Mbacke suma ma wësi la borom Makarimal Akhlaq di ñaanal suma baay Murit Mbay gudd fan ak wér gu yaram di ñaanal suma yaay gudd fan ak wér gu yaram di ko ñaanal bépp waajur xam nga di ñaanal suma papa fi mu tëdd suuf sedd ci kawam di ko ñaanal bépp waajur bu mu fa fekk di ñaanal suma baay Bure Juuf yàlla yërëm ko te xaare ko aljana di ñaanal suma yaay Ndeela Juuf di ñaanal suma papa Mulaay Seen di ñaanal Mbay Seen di ñaanal Adama di ñaanal sama goro Kaabu Seck bu sonnoon ci man lool lool bari sëñ Touba di leen ñaanal yàlla na leen yàlla xaare àjjana ci barki yonent bi di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg yàlla na fi jàmm yàgg yàlla na fi jàmm yàgg ci barki yonent bi soq mu am benn komba boo xamante ni waroon naa am démb sa diggante ak Gamou Gueye li ma bëgg a njëkk waxtaan avant ñuy dugg ci combat bi lu tax nga jël Gamou geey da nga ma koo laajaat kay ndax laajoon nga ma ah Gamou Gueye lu tax ngeen may posé question naan ma lu tax nga jël Gamou Gueye. boo xoolee soq dañuy jàpp ne li nga def ci làmb ak fi nga tollu ci làmb boo boo bëree Gamou Gueye dafa am retard bu am ci yow parce que soq ñu ngi ko doon séentu fi ñuy séentu départ am ci làmb waaw sa diggante ak ni nga ndigal bi nga ko bi nga bëree daan ko jël bu rëy boobu ñëpp dañoo waxoon soq yegg na ca kaw waaye ba tey gisuñu soq ci kaw looloo waral ñu laaj la lu tax Gamou Gueye. loolu champion boo gis jaar na ci champion bu na jaar na ci. Ama Balde bi ko guy gi daanee dafa iri ama neex noggat ko dem yoonam Balla Gaye bi ko Eumeu daanee dafa wàccaat ba rek ñu si suuf yéegaat ba nekk roi des arènes Modou Lo bi ko Balla Gaye daanee dafa wàcc jëli bàyyi ma njoon comprendre nga yaakaar naa tey man defuma loolu yëpp damaa wàcc jëlaat xale boo xam ne ñëpp koy bàyyi xel ñu naan ñii naan daa mën a xeex ñi naan daa bëri doole ñi naan daa mën a bëri ñi naan nangam ak nangam parce que xam nga lu dama xam ni mënumaa dëkk si juum te nit ki boo bëggee ni ñi pardonner la erreur yi nga def da ngay jël ñi xam ne ñoo tax ñuy wax Gamou Gueye champion la treize combats la am onze raw ma ko gënu ma ko baax palmarès champion la sama morom la jël naa ko te combat bu ma respecté la te heure bu ñu bëree dina xam ne kii may bëral daf maa respecté bëgg na combat bi loolu rek moo solo leneen li yëpp ay détails la dafa bokk sama yoonu làmb ndax damay dox di dem interception mu foog ma lijjanti loolu noonu ba pare doog a xooli ñeneen loolu la rek. faw nga lijjanti loolu noonu ba dem seeti ñeneen mais am na ci ñu bari ci ci ñi nga xamante ni dañuy dund làmb dañ ne ci côté ci côté bu dee ci côté technique Gamou Gueye moo gën a technique soq ci bëri soq kon ban avantage la war a am ci combat bi am na ñu bari ñoo xamante ni dafa mel ni soq dañoo réere mbir ci ci soq bu baax a baax a baax sa diggante Gamou Gueye bëre bi loolu nitu làmb du ko wax amateuru làmb du wax Gamou Gueye dàq bëre sook kuy suivre làmb bëgg làmb du wax loolu nit nag mun na faral Gamou Gueye jox Gamou Gueye lépp mais kuy wax logique pour làmb li ma wane ci bëre Gamou Gueye wanewul cerse bi cerse man dugal naa quatre mbër top cinq ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nu ne daanee naa ko mbër Gamou Gueye ban prise la musa daan nit nit taful gémmiñam musta am da lay dóor nga réer mu daw juwaat loog yow daan la dem yoonam mais man dama wone lu ne ci bëre bëre dama cee wone lu ne bëreeg ñu dàq xeex Gamou Gueye gën ko ñeme bëreeg ñu ko gën a capable kon tey bu may bëreeg Gamou Gueye ñu jël lépp jox ko moo dàq xeex moom dégg naa ko sax ci ay interview mu ne moo dàq xeex moo dàq bëre moo ëpp doole moo gën a ñeme waaye ku koy mësa a waxanteeg sook bu ar bi tëjee barrière nga fàtte li nga waxoon loolu man dina ko dénk te si kàttanu yàlla bu ñu amaatee dat ba taxaw ci digg géew bi li mu waxoon yëpp dina ci dellu ginnaaw. combat bi dafa mel ni am na lu mu jaral ndax fekk naa la Gambie nga ànd ak say moroomu nawle mbër di entraîner mu mel ni combat bi ñu ci bari dañoo yaakaar ni soq da koo téye rek def ko combat bu ndaw ci moom waaye dafa mel ni combat bi combat capital la ci du combat bi kese de. du combat bi moo tax loolu làmb moom ma jaral loolu guddi yuñ nii man maa caaxaaneetul làmb man maa fooyeetul làmb parce que dafa am lu ma ci war a nekk Pikine am ci man yaakaar te war naa ko a nekk te gëm naa loolu dama koy nekk si kàttanu yàlla waaw ah, lu mu métti métti rek. keroog dama ko wax exemple ni ko tey bu nekkoon jaasi ak jaasi sama tànk dellu ginnaaw mu naan ñaanuñu yàlla làmb ji am jaasi. làmb du am jaasi mais dama koy xaymaal ni ko rek man soq bu tey bu bali tàkkoon sax sama diggante moom sama tànk du fekk ba sa des waaw mais yooyu noonu yëpp ay détails la li wér wóor mooy ala kulli alin bu ko yàlla mayee wér may ma wér dinañ bëre maa ngi toog rek def sam tekk di xaar ba bis bi ñëw rek ma jongante moom daan ko dem sama yoon loolu rek laa moom. ñu ci demoon nga ba préparé ko ba def li nga war a def xam naa ne ñaan lu nga def nga li nga war a def ba jeex ba dara desul lu dul samedi bi nga dégg ni nouvelle bi combat bi du am bi nga ko yégee ak nan nga ko yégee nu la def. mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. loolu ñun mënuñu si dara promoteur bi munu si dara. ñi ko annulé sax bu doon seen coobare duñ ko annulé comprendre nga mais dañuy santaat rek ndax ñun ay taalibi Serigne Touba lañ. xam nañ mu neex xam nañ mu naqari bu ci ñëw rek dañ koy maîtriser xam ne ay taalibe Serigne Touba lañ te duñ ko weesu ay doomu aadama lañ doomu aadama day yem place doomu aadama mbiru yàlla ñu bàyyi kook yàlla suñu borom mais li wér wóor mooy Gamou Gueye fekk yàlla ñuy may tan dinañ bëre te heure bu ñu bëree dinaa ko daan loolu rek moo wóor. foo ko teg ci mystique wala ci gëm-gëm wala jàpp ni Gamou Gueye nooy neex la da ngay ñëw rek fiir ko jàll. waaw parce que moom dafa jàpp ni peut-être moo ëpp doole sook moo dàq bëre soq bañ ko ba jël lépp jox ko boppam man xam naa ne su dëggalee loolu dinaa ko daan ci ay minutes ñu ci bari ci làmb dañu naan Gamou Gueye dafa am ngemb ngemb Gamou Gueye combat bi dégg naa li nga ci def ci mystique soq kenn mënu koo nattabale li nga ci def ci xaalis combat bi à peu ñaata nga ci def ci xaalis. ngemb dëgg la ci làmb mais man li ma gëm mooy liggéey am doole liggéey am doole ñëw def jom def fulaak fayra ndax doomu aadama dafa foor de tënk doomu aadama ba du yëngu yàlla suñu borom dong ko mën ah ñaan nag am na mais li wér wóor mooy liggéey ba am doole pare ba fuñ la wokk nga xuri fa ca des looloo am solo Gamou Gueye champion la am na ngemb amul ngemb loolu moom la concerné li wér wóor mooy jël naa avance am te bi ma koy jël dama xoole jël ko te bu may bëreeg moom damay xoole daan ko leer laa lay wax waaw Euh, mu am say ñett naataangoo yoo xamante ni yow yaay ñetteel bi ku ci nekk grand combat la doon préparé Gàmbi ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am na ndam tey mu desoon yow yaa ci desoon sa diggante ak Gamou Gueye doonul woon pression ci yow. non non man làmb amatul lu ci doon pression ci man mënut nekk parce que xam nga tax ku bëre 16 combat nekkul gan ci làmb te bëre naa grand combat bëree grand combat bëreeti grand combat bëreeti grand nga ba mu bëree 5 combat ci làmb laa gëj a bëree spécial comprendre nga kon làmb mënatul yéeg sama kaw xale laa Pikine laa dëkk duma ragal yenuwu ma dara ni may doxee nii ci temps bi noonu laay doxee ba sama jouru combat mu ñëw def fulaak fayra mu jeex ma dem sama yoon man loolu laa gëm xaw ma sax fu pression di nekk ci nit. dégg naa Pikine mobilisation bu garaaw lañ doon waaj ndax diggante fii ak arène nationale da ngeen ko doon dox mais tekk wax la te dafa mel ni da ngeen ne woon tekk di xaar ba bis ba. ngeen def arène nationale lu mu musta lu mu musta loolu day gën a metti sax te day gën a yaatu parce que semaine bii ñu jugee nii xew-xew yi fi amoon dafa bëri doon na sax wàññi rythme làmb ji mais nii nii comme puusaat nañ ko gars yi dinañ gën a parewaat gars yi dañoo pare de te teguñ ko woon ci ay wax dañ doon bàyyi ba dimanche bi rek bu Pikine génnee nu duggee ci stade bi mooy lool noonu wóor na maam Serafal tali bees fii rek ni gars yi doon waajee combat bi waxuma la waa Ginnaaraay fi ma dëkk. comprendre nga ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tey làmb ji dañ cee préparé def ci lu ne mu demee nii mais dañuy sant parce que yàlla suñu borom mooy xool li ko neex mu koy teg ci kaw jaamam kon dañ koy santee rek te xam ni noonu la mënoon demee waaw di bàyyi leneen li mu jàll. am na sama waaye ma ko ah comme football bi championnat yi match yi am yëpp dañ koy def huis clos soq gàmmu gay nañ leen ko yóbbu arène nationale def ko huis clos est-ce pourtant nag promoteur bee ci gaañu rek mais Gamou Gueye nii nii barki maam Serafal bu ma sañoon dañuy woo géeju tëngéej rek wëral ñu barrière yi rek. pay per bi fu waay lekk seetaan. loolu war naa mën a nekk barki Serigne Saliou Mbacke ñoom ñoo ci am luñ ciy bañ def soo dawul dara man Kalso daf ma daan wax ni ma doom yaay mu ne ma naam aw nagu ràmb dawul benn nag. nee na bu ràmb la moom nag waaye dawul benn daw mais dawul benn nag. barki maam Serafal te xam nga man moo ma yar. Kalso moo ma yar mooy suma grand frère xam nga daf ma toog ni ma doom yaay aw nag bu wopp du daw benn nag nag yi ci gétt gee koy daw mais du daw benn nag man nag wu ràmb laa daw ma benn nag waaw. xam naa bëgg gi mu la bëgg fu mu toog ci àdduna soq rek lay wax ma nga dëkk parcelle waaye foo toll ci àdduna Kalso soq lii soqlee soqlee seen diggante yéen ñaar lan la. mais bëgg du ci dëkkuwaay. bëgg du ci dëkkuwaay. Kalso suma doomu ndey la suma frère la. damaa ñëw Gambie mu yëkkati caabi këram jox ma ko ma nekk faak samay nit nekk faak lu mat dix personnes ñoo xam ni sama ginnaaw lañ bootu mu yëkkati caabi gàllem jox ma ko xam nga defal ma loo xam ne doomu aadama mosuma ko defal buggul ma xiif buggul ma mar buggul ma manqué dara te comprendre nga jeune la du am milliardaire du millionnaire mais fukki dërëm bu mu yor mun na ko jox doomu aadama yi toog man Kalso loolu laa ko jàppee mu doon nag koo xam ne ku ma jox cër la bëgg ma buggul ma sonn ci dara kon genre nit ñooñu bu la yàlla booleeg ñoom te yow defaloo leen dara ndax xam na façon champion bu ne estar bu ne xam na ko mais terewul ni mu mel si Sokh melu ko ci kenn ama koy ñaanal rek yàlla guddal fanam xam nga yokk ay mën-mënam ndax nit ku baax la quoi te ku jàppanteeg moom doo ko rëccu ndax dama mën a sonn ci nit waaw boo gàttee xel dëgg da koy yaakaar ko ñàkk fayda waaw mais OFTM moo koy dund lool loolu lépp mais sëñ Fallou rek waaw may xamal ni mbokk yi seetaan wasaare làmb rek soq ba tey jëluma sama téléphone woola la woo mu ne ma nañ dem ñu ñëw ba fii def yaw yow interview bi nga xamante ne moom lañ kon looloo lay wan ne am na cër ci yow. waaye yow tamit am na foo ko teg. waaw mais cër boobu noonu moom da koo am ci man. yow même boo ko woowul woon. boo ñëwee ci man. loo bëgg si man dama koy def ndax moom. ndax moom bi may woo di ma la wax. te man xam naa la bu yàgg. comprendre nga mais moom dafa ma heure boo mu bëggee jël moom moo may woo téléphone. kon yooyu noonu yëpp xam nga dund bu rafet la waaw mais nit cër ku ko dul joxe kenn du la ko delloo peut-être li ma ko jox rek la ma delloo man it li ma jox rek laa ko delloo waaw loolu la rek. sëñ bi noo tudd. sëñ Mbaye. sëñ Mbaye. waaw lanu soq nga. man doomu soq ah, waaw moo ma yar. jàngal ma bëre bëggal ma boppam. parce que Seydina Mohamed mu nekk champion bu oyof baax. gis nga ni mel nii comme ni mu la ko waxee barki alxuraanu karim noonu la mel. billaay wallaay talaay day ñëw sama gàlle daf may woo téléphone ku am komba oto bu oto bu ligg si lay jël dugal ma si biir barki Seydina Mohamed sook moom dafa ñaanal boppam ba pare. Sokh moom jarul sax gars yi di tiit wala non non Sokh ñaanal na boppam ba pare. Sokh weex la jël de Gamou Gueye <laughs> ak a mën a dóor. waaw loolu am na Gamou Gueye champion la mbër la ndaanaan la mais Gamou Gueye bu weesee zongaleem boobu lan la mën. zongale rek la am kase. Zambu Gueye bu zongalee soq ñun sook bu ñëw fii dañ koy rey Zambu Gambu Gueye daa am na zongale soq. mais soq tamit combat am yu ci bari zongale la daane de. déedéet seet yow kon xanaa yaa ko siiwal soq. Ah, mais zongale zongale boobu soq laa njëkk gis mbër mu yenu mbër ba ci kaw taxaw ak moom. yëkkati tànk nii sook kase ko def ci làmb. yëkkati mbër ba ci kaw nga jug ci kaw mu yëkkati tànkam moom nii bàcc la. Sakho kese moo def loolu loolu réflexe la ndax nit rek doole la nga yëkkati ko plus de ay quatre vingt kilos quatre vingt quinze kilos nga yëkkati ko ba pare yow nga yëkkati sa tànk mu jóg nga bàcc ko. ñu naan combat bi Gamou Gueye moo dàq bëre soq loolu la ñu wax. Gamou Gueye moo dàq bëre gan. Gamou Gueye Gamou Gueye mënul dàq bëre soq. soq doomu Pikine la te dafa dund làmb barki alxuraanu karim Pikine fii nii gisuma. ñu leen dàq bëri hors secteur waaw te moom jarul ñu koy wax dara moom xam na li ko war xam lan moo gën a neex ànd ak koo xamante ne dafa xam li ko war soo xam na lu ko war te du ngaaxa démb na gaa yàq nañ làmb ju neex mais noonu la mënoon demee parce que ay jaam ak pexeem yàlla ak dogalam mais comme li nga wax sànq rek mënoon nañ ko def yu kuloo de. barke yàlla gaa yi jënd ko rek soo seetaan ko si day leer day leer day yëngu soo ma wax ak yow. Jody noo tudd. man Omar si. lamb sox nga. sox sama doomu ndey la sama waay la mais ga lamb ji. lamb gi dafa ne dañ ko wii kuloo. wala yéen a wax loolu. man maa ne nañ ko wii kuloo yóbbu ko arène nationale. du baax si de ndax gàmbu du gis ñun day leer ñuy wër ñuy kon bu lëmdëmee du baax moom barke sëñ Ba ñun Pikine lan dëkk du lëmdëm rek la ñuy dox ragalul loolu sax voilà jour lamb ja lay xam ne moom lépp dëgg la moom du tus du dërëm. gàmbu gay daa bandi de daa saay saay fii la fekk baax wala xamoo loolu. bandi géew bandi géew. ñun bu lëm demee dañuy dañuy gis daal bu leeree dañuy gis moom bu lëm demee du gis ñun ak moom duñ benn moom day xaar lu bari doole barki maam Bamba dimanche bi ni nag yàlla moo def dimanche bii nii yàlla moo def lu gën si moom te bu amoon du baax si moom lu métti lañ ko def lu métti waaw ñun Pikine lañ dëkk nag xaaruñu kenn. déggante nga ak euh, promoteur bi. ci ci ci ci ci programme bi bi biñ ko annulé combat bi. waaw promoteur bi woo na ma. xam moom itam mu nekk ku gëm yàlla. ndax man biñ ko annulé ñu ma toogal ñëpp dem ne leen man yërëm ma sam bopp promoteur bi laa yërëm. parce que li tax ma yërëm ko mooy mbër bu ndaw promoteur bu ndaw la. promoteur bu ndaw la jël xaalis bari def ko ci sox gàmmu gay jël xaalis bari def ko ci organisation pour bëgg rek lépp jaar yoon mu demee nii moo yëkkati téléphone am woo ma ni ma mbër affaire yi nii la demee métti na ci yéen mais maa ngi leen di masaw ma ne ko affaire bi ci yow lay gën a métti ndax yaa yëkkati sa xaalis jox ñu ñun yëkkati sa xaalis fay stade yëkkati sa xaalis jox organisation yëkkati sa xaalis dugal fu ne kon su demee ni ñun lu métti métti su ñun yaa ñuy gën a métti la comprendre nga mu nekk nit ku gëm yàlla tamit xam nga di ko ñaanal lii don li gën ci moom bu ko jàppaatee mu am ci lu kawe njortam waaw nit ku baax la moom wax dëgg fa yàlla est-ce que di nga defaat comme ni ngeen defoon defaat open press jaar fi ngeen jaaroon préparé waat combat est-ce que du tax ngeen teggi seen tànk ci li ngeen tegoon seen tànk. non nono man bu ñu jàppaatee date bi suba damay open press at defaat li ma war a def jaay bis bi mu jaayu ma ànd seeg ñi ma war a àndal yoole waat pikin mu yoolewu jàpp gàmmu gay daan ko xooli keneen bëreeg moom. gàmmu gay boo amoon dernier kàddu boo koy wax lan la mu jàkkaarloo yow. waaw muy mu bañ a teggi tànkam rek. ndax man damaa bëgg Gamou Gueye buy ñëw ci stade bi yor doole ju bëri nga xam ne buñ dalantee dañuy bëri ba amateur yi doyal sëkk wàcc ñibbi loolu laa bëgg. loolu rek laa bëgg mu bëri bu neex xeex bu neex soq adversaire boo xamante ni buñ taxawee ñoom ñaar combat bi di la garaaw. waaw combat bi fa lañ ñuy xaar maak moom yëpp. àdduna yëpp maag moom yëpp fa lañ ñuy xaar ndax xam nañ ne sook gars yi dañuy wax mais xam nañ jàmbaar yi ci seen biir. Hmm. xam nañ ne soq jàmbaar la. góor yàlla mënu ko ërtal ba def loo ko lu mu warta def gàmmu ko lu ko bëti may fit bi du ko ko xañ kon amateurs yi dañuy xaar ci man ak moom ñu jëflante ba mu saf warul am benn yokki-yokki wala benn affaire kon man li ma koy ñaax mooy na ci gën a nekk gën a préparé waat te xam ni tamit xam ma soo ko mu ngi ci di préparé buñ dajee rek waaw lépp leer. soo bu baax a baax ma leen di jaajëfal xam nga di leen ñaanal tamit xam nga parce que mbër yi bari nañ fi su ngeen fi bàyyee ñëpp ñëw di ñu jël te defuñ dara ci làmb leen di sant rek di leen ñaanal xam nga affaire yi saawaan gën a siw ci site yi nga comme niñ koy waxee rek waaw di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal waa tali bees xam nga ñëpp am jàmm barke sëñ Touba Mbacke ku ci mel ne aada café xam nga kooku sonna na ci waa pikin du si soq kese mbëru Pikine yëpp ku ci am combat lu mu ci mën da koy def xam nga booy ñoom Ousmane bi tali bi fii tali bees bi fii xam ay ñoom Baye Bada booy mu amee combat duñ gëmm duñ nelaw xam nga ay ñoom Ibou Tall ñoom Djili ñoom ab Baye Fall comprendre nga gars yëpp ay ñoom laay di bëggee ñëpp di bëggee sama jour Abou jaalo xam nga maa ngi koy bëggee bu baax di bëggee Modou xaro borom bax daat gars maa leen di bege di sant ñëpp di ñaanal waa tali bees gépp ri aaf yëpp di ñaanal Malick Ndiaye 37 fu xam ma di ñaanal waa Guinaw fi ma dëkk juddoo fa yeroo fa màggee fa comprendre ay ñoom taamara xam ma ay Ziza sama doomu nday moom it sonn na ci combat trop ay ñoom Boy Zil xam nga ay ñoom Mbeexe comprendre nga ay ñoom Abdou Gueye Abdou Gueye tamit combat bi mu taxee ba léegi tëddul nelawul. man barki maam Serafal ay ñoom Alpha ñëpp gars yi maa leen di bëggee ñëpp di bëggee ñëpp di bëggee ñoom Pekin gars yi xam nga waa syndicat yi ñoom Moussa Ndiaye. ñoom Ousmane Tine ñoom Karim xam nga yëpp maa leen di bëggee bu baax a baax a baax bàyyi ma kenn di bëggewaat mbeexe sama doomu nday xam nga di bëgge ñoom léewa mafia bi yëpp bàyyi ma kenn bari sëñ Touba Mbacke ñoom galas mu ndaw ak ñëpp maa leen di bëggee bàyyi ma kenn ndax gars yi dañu sonn ci man te xam nga tali bees bi nii secteur bii nii comprendre nga gars yi dañuy sonn ci sooku te barki démb njaay laa fi xam nga comprendre nga ñëpp bàyyi seen lépp di bëggee mafia bi ñëpp bàyyi ma kenn ñëpp maa leen di bëggee waaw. ko gaan amul bàyyi mooy loolu mafia bi ñoom ama ñoom aas gars yi bari nañ mafia boo leen lim doo fii ngay fanaan ay ñoom o ñoom zéro ñoom yum gars yëpp xama ay ñoom zimbo ay Cheikh Ndiaye maa ngi bëggee ñëpp di bëggee ñoom limaamu gars yi nekk ci ooyo bi ñëpp maa leen di ñaanal xama ay ñoom Seydou Ba ñëpp campénal bi ñëpp maa leen di ñaanal yàlla suñu borom indiwaat leen gaan ay Moussa Ndiaye xayra ñëpp xam nga parce que tey ñun ñoo fi doon nekkandoo ci Pikine bi xam nga di bégee muy neex ñuy sonn ci ñun di daj ci ñun lu ne comprendre nga kon maa leen di ñaanal suñu borom fi ñu nekk yàlla génnee leen fa teñ bañ fa delluwaat ci barke yonent bi waaw. jërë ngeen jaf mbokk yi loolu ngeen dégg lépp euh, soq wax ko ci wasaare làmb moo lay wan ni champion la boo xamante ni am na fu mu teg combat bi tey ba tey combat bi démb lañ ko jàppoon waaye yàlla suñu borom dogalu ko mais taxul mu teggi tànkam boo ko gisee nga xam ne ba tey mu ngi delluwaat ci li mu nekkoon may jaajëfal bu baax a baax a baax Kalso sama grand nga xamante ne borom baax la lépp moom la ñu leen tàggoo tàggoo bi nga xamante ne moo lu tàqali ko bala léegi incha allah ci beneen xew-xewu làmb jaa ngeen jëf.